parce que taïti Altinedi, 26 juillet 2021 donc la installé arrondissement de Malika département de Kermassade. Euh, son excellence monsieur le président de la République mais aussi M. le ministre de l'intérieur nga euh, alors population

ñu ngi leen di woo pour ñu ànd ak ñun ci liggéey bu am solo boobu. waaw fii am na ay défis comme partout ailleurs alors jëm ci jëm ci environnement bi jëm ci cadre de vie ci hygiène euh, mais aussi sécurité. Ah, am na problème sécurité yoo xam ne war nañu ko gérer euh, jëm ci éducation santé renforcement équipement yi nga xamante ñi ngi fi ak infrastructure yi loolu yëpp ay défi la waaye euh, incha allah am na si loo xamante ni tàmbali na ci yoo xamante ni état mu ngi koy doxal li ci des alors euh, danañ ko gunge ci projet yoo xamante ni ñi ngi ñëw ba lépp mën a tege ci yoon lépp aussi doon ñu population bu Malika incha allah